jëf ni muy wàññi prix denrée alimentaire yi nekk na lu nga xam ne lu am solo la ci dundu Sénégalais yi bu ko kenn xeeb première étape la xam naa ni ñu ngi waxtaan waxtaan yoo xam ni mi ngi jëm ci gën a wàññi dundin bi ak dund bi ba nga xam ni ku nekk di nga gis sa bopp ci Sénégal parce que ñoom loolu mooy seen credo kon promesse électorale la woon tey def nañ ko mu doon lu nga xam ni vraiment Sénégal yëpp ñu ngi koy saluer euh, di wax ni étape la boo xam ni jéego la bu ñu demee dañuy dem yeneen jéego jëm ci yeneen jéego parce que kat ku bëgg diminuer prix comme il le faut il faut nga mën a dundal sa bopp réew bu fekkee lépp daf koy jëggaani dafay jafe pour mu may wàññi ay prix. naan bis bu ñu faloo rek ku mel ne soo ko wax ko fu bëree bëri ne bis bu ñu faloo rek ci bis yu njëkk ci weeru njëkk dañuy wàññi njëkk yi kon li doon xaar si ñoom mooy ñu def euh, wàññi wàññi bu gën a yaatu lii parce que tey boo ko xoolee dafa am lu ci leerut am na prix ñox wàññi nañ ko boo jëlee ceeb bi dafa mel ni 350 mooy prix homologue bi commerçant yi kay xanaa ñoo ko yéegaloon kon ñii daanaka dafa mel ni wàññiwuñ dara mais nga jël mburu mi par exemple te li ñuy jaaxal mooy dañ naan na ñoom dañuy bàyyi ay droit de douane ak ay taxes.